assalamualaikum mbokk internet Dakar instant ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci marché colobar ñu ñëw fekk am ay eh, table yu ñu fi doon dajjeeg iya yëkkatee gi loolu. Eh, kilifa gi jaar nan la. tur bi nan la. tur bi Souley Ndione vice premier vice président marché Colobane. Eh, sëñ Soulay ñu ñëw ci marché bi tay gis table yi jaxasoo ak marché bi ni mu wéetee tey ñu gis takk der yi lan lan mo waral seen téway fi tay téway bi feebar bi la rek. feebar bi am ci dëkk bi la rek. hmm feebar bi am ci dëkk bi la rek. am kaay fi ne rassemblement bi gaay def ci marché yi ak dajalo bi te fii place marché la moom dañ fiy jaay portable dajaloo fi fees fe del Kër Massar ñu tas ko tas euh, caaro yi tas fee léegi ñu nekkoon foofu yëpp dañoo daw replié wu fii am la loolu moo tax lii am. mais ci niñ ko gisee nii ndax euh, laata ñoo tas bagage yeeg table yi est ce que tàggoo woon nañ seen i bor ndax moom yëgaloon nañ leen dañuy dañuy yëkkati marché bi. tàggoo woon nañu tàggoo woon nañu parce que avant bii ba léegi day commissaire daf fi ñëw di dox avertissement xam nga tàggoo woon nañu def nañ lépp. parce que ñoom du ñu def dara too xam ñun délégué yi convoqué wuñu ñu waxtaan ak ñun waaw moo tax amul benn problème déggoo fi histoire déggoo fi dara dañ ko gérer normalement waaw loolu mooy problème bi. kon su ma la déggee daal mooy yëpp def nañ ko ci calme def nañ ko ci jàmm ak salaam. waaw def nañ ko ci calme def ko jàmm ak salaam xam nga li fi li fi war a jóge jóge na fi parce que préfet ñëw na fi préfet ñëw na fi commissaire ñëw na fi ay élément ma ngi xam la di gérer normal. amul léegi sax wàcc jot ñun ñëpp ñu tas bi amul coow amul dara. waa ndax ni ni ñu ko gisee duñ def comme ni gars yi def bu policiers yi ñëwee ñu dem bu subaa ñu ñëwaat taxawaat ndax dina am suivi après. ah non suivi moom yàlla xam kooku moom mun kooku moom mun ma ko gérer moom. waaw yàlla xam kooku moom bu yàlla xam parce que Sénégal yi ñoo dëgër bopp. mais om de tenue yi moom vraiment ñu ngi def ñu ngi def seen kattan ay kattan ñu ngi liggéey normal. waaw amuñu benn problème ak peuple ba wax gars yi wax dëgg yàlla waaw depuis cinq heures du matin ba léegi ñu ngi fi amuñu problème population benn problème gis nga leen nii daanaka affaire liggéey bi jeex na. kilifa gi siyaar nan la. sëñ bi ñu ngi siyaar ñu ngi delloo siyaar daanaka yi tey. Euh, ñu bëggoon xam tey ñu ngi ñëw gis euh, taabal yi ñu dajee ak ñu bëggoon xam lan moo waral lii. bon taabal yi ñu daj lu ko waral mooy euh, épidemi bi nga xam ne mooy Covid 19 ñëpp xam nañ ko. dañuy bañ euh, maanaam gars yi di groupe di jaay maanaam dankaloo bi la ñuy bañ mhm. bon si biir dankaloo bi marché bi dafa yaatu soo xoolee yow sa wàllu bopp sax mhm. war nga mun a xam ni mhm. am na lu ñu laal am na lu ñu laalul dafa am fu ñuy wax mango bi mango bi mooy fii wëññi di biiw foofu wëññi di biiw nag foofu la ñu war a déplacer parce que soo ko fa bàyyee wëññi dañ fay ñëwaat foofu la ñuy wax géew maanaam géew bi ñëpp dañ fay dankaloo ñi dañoo jugee yeneen marché yi ñu tëj maanaam comme Guédiawaye ainsi de suite ainsi de suite dajaloo fa taxaw di fa jaay comme ambulant la ñuy def i sa déplace à chaque instant mais di ko que ni dañoo xëy si fekk policiers yëpp taxaw ànd ak waa koñ bi ak ñeneen ñoo xam ne dañoo am ay réglement de compte yoo xam ne ñoo fa nekk di laal leneen loo xam ne leneen loo xam ne bokkul ak liñ leen sant waaw parce que ñun dañoo gis policiers dañuy taxaw jeex na ëlbati ko gis beneen groupe naan ak fii si la bokk ak fee si la bokk kon su la déggee dafa mel dafa am leneen lu laxas ci biir lu bokk tak euh, li leen taxoon a jóg am na leneen lu laxas si biir te loolu ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ loolu mais kon ko ñun ay citoyen lañ te bëgguñu opposé wu ak homme de loi yi parce que mënuñu nekk si feebar ñuy def lii ak lii ñi ay responsable lañ ñu toog xam ni weeru koor lañ nekk am na yoo xam ne muñ ñu bon policiers yi sax dañoo comprendre parce que ñun dañ leen leen dèjà sax duñ dañuy tas bien vrai que nga taxaw ñu yàq sa alal ngay jàkkaarloo moom métti na mais dañoo tas di leen bàyyi ñuy yàq parce que ñun ay responsable lañ ñoom seen wàll boobu dañoo xool ñun ñu ñëw si ñoom ne leen ñu waa koñ bi dañ ñu bëgg jaxase ak yéen moo tax ñu ne laal leen fii ak lii parce que dafa métti ngay taxaw ñuy laal sa alal nga mu jàkkaarloo moom te mu ñu tuddee ko intouchable net net na ñëpp moo tax ñoom ba ñu xoolee xam nañ ni lii nii sax am na lu si rax parce que côté yi nañ di wax ni laal boo xoolee ce sont des places espacées mm-hmm. soo des places fixes qui existent presque vingt cinq ans ñoom ak parc Fëgg Jaay bi ñoo bokk. maanaam ay parc croix rouge la ça existe depuis am na ñoo xam ne am nañ fa doom yoo xam ne sax ñi ngi def bac yàlla bi ñu tim xam nañu place yooyu moo leen ngénte bon laal nañ ba laal loo xam ne waruñoo ñu koo laal wax dëgg yàlla métti nañu mais comme que ñun tamit Sénégal lañ dëkk ñoo ko bokk bon dañuy bàyyi lépp si loxo suñu borom jaar fu ñu war a jaar ba sans tàngal sans nuy rien affaire responsable li ñu yàlla may ñi xam ne lool la lu yoon joxe ñi xam ne tamit loolu la mais duñ fi def benn violence mais daal buñ xoolee ba xool Sénégal gii ñoo ko bokk. Mm. bu pël Fuuta yi bu leen bàyyee ñi am jàmm. Mm. yeneen dëkk yi am jàmm nekk suñu kanam bi am jàmm ñun ñi nga xam ne doomu dëkk bi lañ mënuñoo am fii jàmm mënuñu fa am suñu teraanga fi ñu juddoo. Mm. war nañ saraat mbir mi quoi bu yàggee Covid 19. day mel ni Covid 10 la quoi plus un. kenn xamul lii lu mu doon day mel ni ñëwul pour defar mais dafa mel pour dafa ñëw pour lépp lu ëmbul ëmbul nit ki nga profité ko. parce que soo xoolee day mel ni daal dafa am leneen lu muy ñuru dafa am lu lalu ci suuf parce que leneen lay ñuru quoi Covid 19 am na fii rek nañ profité hmm. pompe dégagé provision am na fi profité pompe dégagé da ngay dégagé ba dégagé la war dégagé ñun ñëpp buñ toogee si kër yi est-ce que tamit duñ tamit ñun ñëpp dañu nar a dénk la si biir kër yi hmm. ay borom kër lañ ku si sokkeekuwul doo am sa njaboot duñu duñu ndogu métti na lool premier jour koor ñu lay def nii ba métti foo ko natt métti na ko jërëjëf kilifa jërëjëf maa ngi leb tur ma loolu da nga ko waaye li si jiw nag. sa voix rek mooy feeñ. kenn xam ne yow la. fan la ban kii la. bu ma filmé nag. non non bu ma filmé grand. waaw d' accord Eh, neen noonu ngeen koy gisee fii ci marché Colobane maanaam ñu ko gën a xam ci maquette bi noonu ngeen gis cantine yi yëpp tëjee eh, bagage yi table yi fi nekkoon yëpp ñu yëkkati ko ngir li nga xam ne mooy eh, tawat gi nga xam ne moo fi nekk di mbas mi di Covid 19 coronavirus. noonu ngay gisee gannaaw bi ñu tëjee marché Guédiawaye Pikine marché yi ci dëkk bi yi ci Sénégal woon ngeen këpp tey ci Colobane fii ci maquette bi seen ngeen ko noon fii boo fi daan jaal waxtu yi doo am foo taxaw ndax nit ñu bare ak table yeeg yooyu noonu nga gisee gars dañ ko raxas fa mu set ci niñ ko déggee ci ñenn ñi suñu waajur yi ñu fa nga xam ne nii mooy délégué marché yi euh, depuis cinq heures du matin ba léegi takk der yaa ngi fi ñoom ak gars yi ñu ngi nekk fi di bagage yi benn par benn nit ñi ñu ko xamal ne amul benn xiiroo amul benn ŋaayoo ndax xam nañ ni tawat gi moo waral loolu tawat gi mbas mi nga xam ne moo fi ne ci biir réew mi moo waral lu nu mel kon ñoom it dañuy jàppale seen bopp jàppale tamit euh, askan wi. kon noonu seen nga noonu ci biir couloir seen nga yi dañuy wàcc dañ leen di topp ba ñoom it ñu waxtu.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 Dakar instant lañ leen laay wax na gars dem abone loolu bëgg si actualité ñëw leen si dakaar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw dakaar instant nag moom ñoom danoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee bu ma yeewoo information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant.